واترنا دريغ المصطفى كرما دهرا بعرف سسي منك يا الله واترنا دريغ المصطفى كرما كرما دهرا بعرف سسي منك يا الله يا الله واترنا دريغ المصطفى كرما دهرا بحرف سسي منك يا الله وارترنا درر المصطفى كرما مصطفى كرما دهرا بحرف سسي منك يا الله يا الله وعترا درير المصطفى كرما دهرا بحرف سسي منك يا الله وارترنا كفى كرما منك يا الله يا الله واترنا الدريع المصطفى كرما دهر القرب سسي منك يا الله دهرا دريغ المصطفى كرما دهرا بحرف سسي منك يا الله مصطفى كرما نبي وسلينا بتسليم عليك وروي صاحب الريعان يا الله المصطفى كرما كرما مصطفى دجلو ما وخلا نبند مصطفى ملم بام تودو ngeen ji mi ndef ngeen ñepp yàlla la bind Moustapha mela mel mela mel yoon na déglu lu ma wax la na bind Moustapha mela mel doon tudd ngeen ji bindee ba ñëpp yàlla déglu lu ma wax la Moustapha sunu yoneen te déglu lu ma wax la na bind Moustapha ma leen la doom tudd ngeen ji mi def ngeen ñëpp yàlla bindab Moustapha melam maka xat قل خل واخدهم قولا فيا الله مصطفى مصطفى مصطفى جيكم يا يوم مدنلهم يا سل يا رجل اي مصطفى المجتبى المختار يا الله bindam mustaan mel amel bam tudd ngan mi leef gëli yëpp yàlla yonent jikkoom ya ñoom mat nelam yaa sell cër ya rafet yay mustaal mutabal muxtaar yàlla bindam mustaan yónneen bur yàlla sàkkuloon misloom ca gaaya yoon te dootu sàkkiti misloom wóor na yàlla te bind ba fa mela mel sunu yónneen bur yàlla sàkkuloon misloom ca gaayam ka tootu sàkkati misloom wóor na yàlla la bindam Mustafa mel mel yonen gàttul guddul xeesul ñuulul yaram war a tax këram yépp mat sëkk buy dox sut la yàlla déglul ma wax yaram war këram yépp mat sëkk buy dox sut la yàlla mela mel mela mel ñu yónneen moom ni fataxul dooxul wagul seetaxul sagul fa yàlla mela mel mela mel yonen moom daa amawul deful am yoon rëyul ni fatax dooxul wagul setaxul sëggul fa yàlla mela mel mela mel ñu yonen rinkul lësul noojul gangul nga yeele sewul aloor ya papa moo jënde yàlla Mustafa mela mel ñu yonen moo jëkka ab taxawaay day kem ñenentu xasab ee juneex jaan jamal yalaam la yalaam na binda mustawa telemel ba ma nu yonon moo jëkk ab taxawaay deke yeneen to xasa ee juneex jaan jamal yalaam la yalaam na binda mustawa telemel lu yoneen ak jaalu yàlla waa si ñoom ñu ma ko def ak yu jekk yaa ak mu ñaay ba yàlla mel bam lu yoneen ak jaalu yàlla waa ak si ñoom ñu ma ko def ak yu jekk ak mu ñaay ba yàlla dundul ma wax la Moustapha Moustapha yonen mu yonen mu ñaay ba day sax melax gu gayam ci siinu marax yaam jaga ceel la lampi gaasi yàlla Mustafa mela mel yonen mu ñaay ba dey saaf melay gumba fi xinu mara reem jaga ceel lampi gaas yàlla Mustafa Mustafa Mbàkke jëm ba yooy wandeelu ba saf weeru ba dirin loxoom bañ ak ma xal ak baatam ga yàlla Mustafa mel mel nu yoneen jaam bay wane lu bay saf weeru badiri loxoom bañ ak ma baatam ga yàlla naa mel mel Seydina Muhammad jëm bay wandeelu bay saf weeru ba diri loxoom ba ñëng ma alak baatam ga yàlla Mustafa magaleel Seydina Muhammad Seydina Muhammad yeenam yu saq ya ànd ak njañ la faf di melax li xam yu ratax yaa ak leeraay ba yàlla Mustafa mela mel Seydina Muhammad yéenam yu sàq ya ànd ak njañ la fef di melax li xam yu ratax yaa ak leeraay ba yàlla ayu Fatima doo ayu Fatima du bintu Mustafa boppam bu mburngulu baax boppam yu rëy ca sax ya muy wëlbati lamsal fa yàlla la bindab Mustafa mel la mel nuurug bakkan ganee fay saf na taali wurus ni ki am bu jekk ba faasam ya yàlla na bindab Mustafa melam Mustafa diggante yaa waari wagam yaa xaatim mam ba ñu tax te diggandoo dem tam te yàlla yéem yu subeem yu jekk ak ci yu taatu ya fajar yu talli ya kalooram yoo ya yàlla سيدنا محمد متبع سفيم يجكك الكقم يتاتيك حجر يتلياك الهرم يا يا الله الفاتمة انت رسول متبع سفيم يجكك الكقم يتاتيك ajar yu tal yaa ah, kalooram yooya yàlla Mustafa Mustafa Sidina Muhammad doxiin wu jekk anga gam la temp ma woon doxiinu ramatu lay dox bir na yàlla ba mu tudd gën gi mi def gën yëpp doxiin wu jekk wa andaa gam la temp ma woon lay dox bir na yàlla binda Mustafa Mustafa mel la mel Mustafa waxiin wu dégg wa ak baatam bu neex ba mu yor lamiñ wu gàtt waa kellam ga yàlla Mustafa baale bul barul dotomul nasul dërul taxulan baatam la sewul señul fa yàlla déglul melamel Muhammad leebul barul dotomul nosul darul taxul baatam la xutu sewul señul fa yàlla Mustafa yaa minato Seydina Muhammad leebul barul dotomul nosul darul taxul baatam la xutu sewul sëñ bi fa yàlla Mustafa ndigam lu jekk la te ndigal tamaam la mu yor ëppam yu jekk ak peram ya yàlla Mustafa mel mel awa loxoom yu jekk ya awaroom yu sew ya ca sax reem yu xonq ya buñ koy lewi yàlla mel Mustafa loxoom yu jekk ya baroom yu sew ya ca sax am yu xonq ya buñ koy lewi yàlla dafa mel mel dafa moo ne xuban ku nuyoog yoneen di xeeñ ba ëllëg de saafante ka jàmmante ka yàlla ma wax la la mel Mustafa moo di xuban ku nuyoog yeneen di xeeñ ba ëllëg da saafante ka jàmmante ka yàlla na bindëb Mustafa mel mel kumbraay sa bopp nga ànd ak barke foo mën a jëm kun ciif li ñaanal la dootoo joote yàlla ku nay sa bopp nga ànd ak mag foo mën a jëm waawaaw Mustafa kum ray sa bopp nga ànd ak barke foo mën a jëm kun ciif li ñaanal la dootoo joote yàlla waaw Moustapha kum raay sa bopp nga ànd ak barke fo mën a jëm lu diif li ñaanal la dootu jot yàlla fo mën a jëm Moustapha kum raay sa bopp nga ànd ak barke fo mën a jëm lu diif li ñaanal la dootu jot yàlla Seydina Muhammad Seydina Seydina Muhammad Mustafa kum raay sa bopp nga ànd ak barke foo mën a jëm moom di yib di ñaanal la dootoo jote yàlla foo mën a jëm عطرنا دري المصطفى كرما دارا بعرف سسي منك يا الله واترنا دريع المصطفى كرما منسسي منك يا الله وسليا بتسليم علي به وروي بريان الله muhammad sayyiduna muhammad sayyiduna muhammad sayyiduna wax fi nag ay jikkoom yoo xam ni tuut la ba caay soloom ya ca mawlid wax fa yàlla xadd kaana yool makka salalaaw laa ko manal alay kulla salaatin sallamallahu kersaaki tegiin la lamboo te nooy te dëgër te foog te jàmbaar te lamboo fulla yallaahu dada toroxlu di gaar dallem te dig du ko jëm di gaar mbalaan ya di sol yeñ daax fa yàllaaw dada toroxlu di gaar dallem te dig du ko jëm di gaar mbalaan ya di sol yeñ daax fa yàllaaw ret gàttam ya ànd ak sardiya yi fege bey di yewi naagam di fekk baxlaam ya yàllaaw war ca baxlaam yaag naagam ya daana dawal di war ca baam ya di ànd ak nit ña yàllaaw sayyiduna muhammad di war ca baxlaam yaag naagam ya daana dawal di war ca baam ya yànd ak nit ña yàllaaw Isa mu sol mbaxanaam Isa mu kaalaw bis Isa mu jartu di boppum neen fa yàllaaw Yoosa mu tëdd fi suuf Yoosa mu tëdd ca kaw Yoosa mu jekki xalam yàllaaw yàllaaw suy lekk day woote daawun gis mu lekk ci bis kem yaari yoon sa kaayateel wóor na yàllaaw suy lekk faaw ni bismillah yi door a dugal alhamdulillah lay noppee fa yàllaaw Isaa mu lekk di bokk ak Babakar wa Umar Usmaanu suma aliyun bir na yàllaaw isa useynook asan wa fatimatun isa mu bokk soxnaam wóor na yàllaaw woo laj koloñ ak diw di tusngalu bis léeg-léeg ta kaafoor yàllaaw soppoon na ay jaaruñ jëf njong ta daana ko sol di làqu njong la ca biir ten xam la yàllaaw diggante nday joor ba ak ba lépp ci yam fu nekk daana fa sol jaaroom ba yàllaaw suy lekk jël yëti waaroomam di tibbee di seex di bëpp ñamam mastalaal tenxam la yàllaaw kem yetti guux mbaa yenant lay naan du naan di taxaw mbaa néew na mbaa nganti lay doon bir na yàllaaw fuy teef ya daana ko mos ñet ya daana ko mos reseñ beten sa xaal beten sa fa yàllaaw fuy teef ya daana ko mos meññet ya daana ko mos reseñ xaal banax ba tan sa fa yàllaaw lii lépp ket ñàkkuloon lum lekk fuqulewul te daana wayaflu te am yërmande yàllaaw Seyduna Muhammad Seyduna Muhammad Seyduna Muhammad def leen nii màggal Seyduna Muhammad day mi way ñàkk ñàkk miskin ya kenn du ko daw di raay jirim ya yi togg jaam ya yàllaaw day way ñàkk ñàkk miskin ya kenn du ko daw di raay jirim ya yi togg jaam ya yàllaaw di seeti way wopp ya jaal way deeya fuñ mën a xew biramu way deeya faatoo foofa ya laaw du xeeb du naw te du laaj nit lum amul abadan ko kaase langu ca kaw askan wa ya laaw du door du mer du merloo nit du gëdde du lor du xoti saatir du yàqu der fa ya du door du mer du merloo nit du gëdde du lor du xotti saatir du yàqub der fa yàllaaw sayduna muhammad suy mer dada mer ci mbir moo xam ni yàlla da ko mer mustafa mer ko mook saabaam ya yàllaaw sayduna muhammad suy mer dada mer ci moo xam ni yàlla da caa mer Mustafa merca mook saabaam ya yàllaaw Seyduna Muhammad su daa bég ja daa bég ci mbir moo xam ni yàlla da caa bég Mustafa bég ca mook saabaam ya yàllaaw su dee gërëm day gërëm koo xam ni yàlla da koo gërëm mu xëy koo gërëm moo gaa ya yàllaaw te mu dajeel faw moo la njëkk nu si bu wér de saafu ante ka jamante ka yàlla te ku moo la njëkk nu si bu wér bu wér de saafu ante Moustapha kam mu dajeel faw moo lay njëkk nuyu subu wér te saafu ante ak a jamante ka yàlla waaw waaw de saafu ante ka jamante Moustapha kam mu dajeel faw moo lay njëkk nuyu subu wér la saafante ka jamante ka yàlla te ku mu dajeel bu weer de saafante ka yàlla di watlu aqi boromam waslu aqi morom waslu aqi dakaaleem ngir ga yàlla awa desaa ko ante Mustafa di xiif fa xiif ba jaxaj ay doon ci leng yaram taxaani amu caabi koom ya yàlla Mustafa di xiif fa xiif ba jaxaj ay doon ci leng yaram te xam ni amee caabi koom ya yàlla. te ku mu dajeel. faw mu la njëkk ni si bu wér Moustapha. Moustapha di xiifa xiif bay taxaj ay dong ci lengi yaram. te xam ni moo amee caabi koom ya yàlla. Moustapha. na bay tayle ay mbubab te lépp du am te yor xasaa'inu rabbul arsi yàlla محمد دسافو أنت كجمنت مصطفى خيفون بيت إليه أي مبب دلب تدوام خيار قسائن رب العرش الله mam tey la ko xëy dugg xaw na faawel booba yàlla waawa safante Mustafa bisub keroog la ko mbooleem doji yëpp sikkal naan ko soppi nu wurus muy bañ fa yàlla Mustafa day saafarante wara wattu xool jibaalu summu min saabin ana si fara allahu yàlla waaw dëddu àdduna far te jublu àllaaxira tey waaraate yàlla Mustafa ku néewu buuri la woon moo dëddu àdduna far te jublu àllaaxira tey waaraate yàlla أكدر سودو فيا دررتو حاجل برم بردو سن يونين بيالا Bukudi rakalawon, bukudi dawu fajok. ata saka xaat maaw dara yàlla Seydina Muhammad Mustafa ak naafilaam fukki rakaam ñaar la woon abadan yeesul abul taxawaay ba yàgg yàlla Seydina Muhammad Mustafa xutbu bu juma daf ko daagatal te wax ko sa kaw ba ñépp dégg ko mu ñaaxaate Mustafa wayu kurima day fa moomaan jan te sopp dëkkam te saafaray rag tey faj fa yàlla Mustafa borom Madina Mustafa dada yaram ndaw fayal fa borom dafa jirim yaa may daay fa yàlla Mustafa di la xaba yooya ak ya fu topp doo bàjjo yaa jar mi li yàlla waaw Mustafa di la ko bàyyoya ak miskin ya fu ñu mën a jëm ki topp doo bàjjo yaa jar mi li yàlla Seydina Muhammad balla du dul dëgg manoo maandu bay safuraf doo gis mu war cib dëhal billahi yàlla sidina muhammad du lekk àq du lekk mu rambu mbaate sarax adiya lay lekk mook saabaam ya yàlla سيدنا محمد وعاترا طريق المصطفى كرما ظهرا بحرف سسي منك يا الله كرما ورمتنا وحاترنا دري المصطفى كرما ظهرا بحرف سسي

dajeena te way na lépp lam besoroon waaye xawaarix yoneen dafa yàlla yoneen mawlid ba jeena te way na lépp lam besoroon away xawaarix ya yoonen dafa yàlla magalel seydina Muhammad bayu Fatimatu yoonen mawlid ba jeena tawayna lépp lam kasaroon away xawaarix ya yoonen dafa yàlla Mustafa Karam Sidina Muhammad mawlid ba jeena tawayna lépp lam wesoron ma yo xawaare ak yoon nen dafa yàlla karaman yoon ngir mu gisaa rasulillahi kenn du ko la yéeni téere ya wax laay wax fa yàlla waawaa yoon ngir mujisaati rasulillahi kenn du ko la yéeni téere ya wax wax fa yàlla Seydina Muhammad màggal leen Seydina Muhammad baa ngir mujisaati rasuulillaahi kenn du ko xam da yenn téere wax laay wax fa yàlla dari xawl salaati rasuulillaahi kenn du ko xam la yéen téere wax laay wax fa yàlla Mustafa karaman Mustafa la yéen téere wax laay wax fa abadan la yéen téere wax laay wax fa yàlla ma wax la xawaay yox lana sarafat ju mu safar mu tabaal muxtaari yàlla Mustafa karamal mu yonen déglul ma wax la xawaari lana sarafat ju mu safar mu tabaal muxtaari yàlla شريح المصطفى مصطفى دقلوا لما وخلا خواريخ لنا صرفت المصطفى المتبع المختار يا الله naan ma daw wala xalaat sama li man yaatoo na yàlla Mustafa karaman lam daa ku bi man ma daw wala xalaat sama li man yaatoo na yàlla lu ca gaay ya weyoon amul lu ca gaay yi fi des am ci lu ca ñay bëgg a ñëw insa yàlla Seydina Muhammad Seydina Muhammad sunu yoneen amul lu ca gaay ya weyoon amul lu ca gaay yi fi des am ci lu ca ñay bëgg a ñëw insa yàlla yi fi des màggal leen Moustapha amul lu ca gaa yi weyoon amul lu ci gaa yi fi des am ci lu ca ñay bëgg a ñëw insa yàlla amul lu ca gaa yi weyoon amul lu ci gaa yi fi des waaw amul lu ca ñay bëgg a ñëw insa yàlla Seydina Muhammad amul lu ca gaa yi weyoon amul lu ci gaa yi fi des am il te ñay bëgg insa yàlla am inna lu ca gaa yewe lu ci am il te ñay bëgg insa yàlla Abdalaay baayam am inna